aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala muhammadin wa radiyan xadimihi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi amaan mbégte wax dëgg toog ci plateau bi nga xam ni eh, ñoo ngi fi dundal guddi xaside gi nga xamante rek mi ngi am fii ci Touba Prato tey jii di onzième édition bi eh, muy lu am solo loo xamante nii eh, ay mbokki taalibe yu am pësteef jug nañ sàkku bis bi mu juddoo ci biir daayira yi ñu fi daje doo jàng alquranul karim ak xasida ba daanaka ëllëg bu julee fajar lañuy ñuy doog a yeweeku ñu bokk ak plateau bi nag sama mbokkum taalibe Serigne Bargou jóg ak Cheikh Moustapha Guèye ñu war a waxtaan tuuti rek kon ci li nga xamante ni moo di eh, xasida nga xam ni moo di daanaka euh, kiraama Sëriñ Tuubaa ndax damay faral di wax ni euh, doyoon na sëkk rek jàmmarloo bi nga xam ni jàmmarloo na ko nasaraan sa euh, te du woon dama naan du woon benn benn nit wala du woon benn administration mais administration coloniale française la woon. ñu ànd ak seen matériel bépp seen matériel yu métti yëpp ak seen gànnaay yëpp ak seen xam-xam bépp ak ñu leen jaan jàppale loolu rek doyoon na kiraama sëñ bi mucc ci ci kattanu suñ borom subhanahu wa doo euh, doyoon na sëkkit mu ni rek euh, doom yi ma jur ak ni ñu mel ak ni nga xamante noonu leen suñu borom yare ak ni leen tàggate euh, loolu rek doyoon na sëkk kiraama ndax ñi nga jur ñëpp ñëpp baax loolu yaakaar naa Sëriñ Tuubaa rek la ko suñu borom defal doy na sëkk mën itam mag ñi nga xam ne yar naa leen lu ci demee ni maam Thierno Birahim Serigne Massamba Cheikh Issa Diène ak maam Cheikh Ibrahima Fall ba Mouridine ak ñooñu loolu rek doy na sëkk kiraama ak yeneen ak yeneen ndax jamono ji du ko maye waaye dañuy karaamati xattu yaddi nga xam ne li ma bind ci sama loxol ndeyjoor lii mooy sama kiraama eh, Cheikh Moussa ñu war a waxtaan kon ci loolu. Euh, mu la xasida tey jii lan nga mën a indi ci baatu xasida lan la mën a wund ak lan lay firi. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax ci laaj bi nga xam ne laaj nga ko mu jëm ci xasida euh, màggaayam akit euh, lu muy def ci nit ki ak ki ko moom bindal ko boppam lu mu ci namm loolu am na solo trop yàgg naa ko wax ci ay plateau yu bari xasida dafa nekk mbégte jullit yépp Sëñ Tuubaa yëmaliwu ko rek ci muridisme bi képp buy wax sax di ñaan danga gis muy ñaan bay ñaanalaale ñi nga xam ne duñ ay jullit kooku bu ngeen gisee yaa raxmaanu yaa raxiimu da ngeen ci mën a nemiku loolu waaye nag borom bi nga xam ne nag moom moo ko moom te xam xasida xam gi mu xam xasida nag yaakaar naa ku dul moom xamoo ko kon li nga xam ne moom wax na ko ci loola rek lañuy mën a jàpp ndax loola mooy li am ndax loolu li nga wax ne karaamati xattu yat yi sëñ Tuubaa ay karaamam ci mbindum loxoom la nekk ba tax na gis nañ ne ay jamono fekkoon na fi ay ulama muy ay jàngkat yoo xamee ne dañ daan jàng alxuraan di jàng xam-xam di bind ay seeni xasida comme ni ma ko mën a waxee waaye bi sëñ bi ñëwee nag dafa fawxa ñoom ñëpp ndax am na ñoo xam si bu ñu masaan bind seeni téere euh, di ca tegtale di ca adressé seeni tur euh, boo jàngee téere bi ba ca biir daanaka la cay intérêt cent pour cent cent pour cent ci euh, nit ña muy waxal dana néew sëñ Tuubaa nag bu mu ñëwee dafa dale foo xamee ne que nii ki koy jàng daanaka mën naa ne boo xoolee sax la mu ci am mën naa ne ñeneen ñi duñ ko ci am ndax daraja ñun lan bëgg bëgg alal bëgg teraanga yi àddina ak àllaaxira loolu nag ñi ñu fi fekkoon bu njëkk ñu ko daan def muy borom talsan yi ak boroom kurus yi daan fanaan di werd ba bët set wecc euh, pendant ñaar fukki at dañ ko daan def di wut benn ismu kepp te benn tur lañ ciy am suñ borom nag loola lépp da ko dimbalee sëñ tubaa mu dëxiñal ko ci biir xasidam yi sëñ tubaa nag li tax mën na la moo xam xasida dañu dégg ci mag ñu baax ñoo xam ne jamonoonte ñoo moom ci njëriñ bi ma ci gën a marqué nag mooy benn bis nijaayi sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke muy sëñ ma Sàmba Kaddi sëriñ Touba daf ko woo ca njëriñ gannaaw bu nu jullee julli farata yépp ba julli gee ba noppi mu ne ko ma sàmba mu ne ko ne ko nañ ànd dugg ci biir néeg bi bi ñu àggee mu ne ko ma sàmba ubbal bunt bi sëñ ma sàmba kan di tëj bunt bi dem tooge ne bi mu toogee ne sëriñ tubaa dem tooge ne nee na mu gis sëriñ tubaa ci boppam mboolem lu mu tegoon ci bopp bi mu dindi ko muy kaala yeeg lépp ba desee bopp kese te nee na loolu kenn mësu koo teg bët ci sëñ tubaa ndax bu ma saan kaalaw kaamilu alxuraan lay teg ci bopp bi jël kaala gi def ko ni ko Cheikh Abdoul Ahad di def su noppee def ko noonu ni ko Cheikh Mouhamadullah Mourtala Mbàkke def nee na mu dindi yépp di teg ndekk booba day waajal yonent bi alayhi salaatu nee na amuñu ci lu toog mu yàgg dañu gis perum penku mi ne laveer tegu na le leer bu gën a leer jant bi tàbbi ci biir néeg bi ñu gis sallallahu alayhi wasallam ñëw ca taaram ba taxawaay ba ak matuk jikkoom ga ñëwee ba toog Serigne Touba moo jël bëti woomam sukk ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yëkkati ay xasida yoo xam ni baxru yi kenn mësu koo dégg ci àddina di ko yëkkateel boppam di ko jóor yónnante bi di ko ko jóor ba bët set wecc naar bi julli nodd mu ne acc la ñu julli fajar bi ñu jullee fajar ba noppi yónnante bi alayhi salaatu wasalaam dellu sàkket wi dellu siwaat kon kooku mooy jàngkat bu mag bi moo xam xasida beneen bi ci des war ma ji nga xam ne war nañ koo jox xasida nun ñi nga xam ne ñun ñun la ko sëñ Tuubaa baaxe mooy waxoon naa ko ci njëlbeen xasida boo koy jàng da ngay njëkke ak laab ci sa xol set fecc bañ a ëmbal kenn dara ndax lépp lu nekk ci sa xol rek bis bu xasida gi duggee ci biir rek da koy da koy da koy partagé da koy partagé ba tax na ko da ngay laab ci sa xol laab ci sa yére ba pare nag amum njàng njàng mu wér mën a génne maxaarijal xuruf yi mën a génne lépp loo xam ne si sëñ Tuubaa bi nag ndax sëñ Tuubaa day bëgg booy jàng xasida gi képp ku koy dégg di arab wala nga dégg malaaka yi nga xam ne wax na ne dañ koy déglu ñu xam li muy tekki loolu kon jàng am na ci solo beneen bi ci desit buñ ko lim daan santaane buñ koy jàng ñi koy déglu nañu noppi ndax joxe na ci ay tegtal tegtal yi nga xam ne joxe na ko ci benn bis maa ngi déglu Serigne Thierno Mbacke Gelongal daf ma wax ne ma dañ doon jàng ci sëriñ ma Massamba def kuréel te kuréel yooyu laata ñu koy defee ci gàmmu la ko euh, jëlee ndax gàmmu rek lañ gis sëriñ Touba. mu jaral ko loo xam si lu jëral ko kenn ndax dégg nga fi naan ah yeytu mawlidi nabi min assasine kooku ba muy taxawal gàmmu ci ay yi 1884 jàpp 83 euh, jàpp 84 kooku yàgg naa taxawal gàmmu yàlla dogal nag tabe gi mu ci daan tabe ak euh, yéene ji mu ci daan am ba nit ñi dañ ko daan dàkk sax jamonoy gàmmo ngir tabe gu muy tabe ndax yàkkamte gu muy eh, tagg yónent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne gis nañ ne buñ masaan toog ci biir tànt bi sëriñ tubaab mooy toog yor ay kafteeri kafeem kafteeri meewam def ay bernde dégg nga ni ñu ko waxee ni ko Cheikh Issa Diène daan def jël benn perong perong ko nii ci suuf ba mu yaatu ñuy togg ñëw di ci xëpp ñuy jël ay peel di wax naan ku bëgg ñëwal ñu ñëwal ñu defal la loole bu ñu ko daan def dëggul nangu picc muy naaw di yàqal ñuy jàng waxuma la nag ñuy jàng nga yor sa euh, coow di wax yëroo jëroob téere di di jàng ba pare di tànqal ñi nga xam ne dañuy déglu loolu bañ ko defee ci njëreem kuréel gi toog alxames sëñ Massamba organisé ko bi ñu toogee di jàng bu mujj yàgg rek am jenn jëmm ju jóge fële ci mbokkam la moom ñëw ba ci jaween jàngkat mu laal tànk bi mu gestu ko mu sëgg am lu mu ko déy sëñ ba attaqué ko ne ko diw mu ne kaa mu ne ko ngeen moytandiku fu ñuy waxee wax ji ma wax sallallahu alayhi wasallam ngeen di ci dugal jeneen wax ku ko ci moytuwul malaaka yi danañ la jël taxañ la sànni ci àll ba ndax malaaka yi dañuy déglu te bëgguñu ko yàq seenub déglu loole ñëpp gis nañ ne def nañ ko kon xam naa naa la dégluwaat ci sa deuxième question su ko defee ñu mën koo gën a leeral. ok baax na ñu daamagun ñoo ngi toog ak tam suñu jëwriñ sëñ Mbargou Diop euh, moom it ñu jox ko kàddu gi bu mënee àddu ci laaj boobu ci lu mel ni xasida nga xam ni mooy liggéeyub sëriñ bi te mooy ndonuy murit yi eh, ndax eh, sëñ bi bi mu demee jàmmarloo bi mu doon jàmmarloo ak nasaraan si ci xasida la ko doon bind waaye demoon na itam ba ni maanaam eh, dinaa dellu siwaat dem ci seen réew yooyu la xoon fi àddi him la xoon wax wax ak nasaraan si ba mag ñi jàppoon ni ndax sëñ bi tubaab bi dañ ko war a jàpp siwaat wala déet fekk booba xaside yi nga xamante ni dañ ko war a indi ci réew yi ci diaspora bi di ci wax ak nasaraan si ndax euh, mag bu bu wuutoo ay waxam ñoo ko fi wuutu te wax waxi Sëriñ Tuubaa mooy xaside yi loolu tam lan nga ci mën a soññee sëñ Bargny. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barkeb sëriñ Abdoulahi waaye jërëjëf sëriñ Moustapha Guèye ci loolu nga xam ne indi nga ko mu nekk njariñul xasida xam nga xasida dafa nekk loo xam ni lu kawe fa sunu borom la subhaanahu wa taala waaye lu rëy la ci ki nga xam ni mooy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom la ko Cheikhul Xadim wax waaye bokk na ci màggaayu xasida it sunu borom subhaanahu wa ni nga xam ni noonu lay aadawoo di def ñi nga xam ni ñoom la liggéeyal boppam bëgg leen a samp bëgg leen a yónni ci doomu aadama yi ku ci nekk dalay am loo xam ne dala koy jox mu mel ni ab kéemaan boo xam ne ñi nga xam ne ñoo maaseeg yow jamono yépp amul kenn ku ko ci man ñu dale ko ci ki nga xam ni mooy Seydina Muusa nga xam ne suñu borom subhaanahu jamono jooju njabar mooy li nga xam ne moo nekkoon li gën a fés nga xam ni képp ku ko man daanaka yow lañu teg ci kaw ndax dañuy defee ni yow euh, yaa yor xam-xam bi nga xam ne xam-xam bu dul jeex la ba bi nga xamee ne sunu borom subhaanahu wa taala bëgg naa wone ni euh, kàddoom mooy li nga xam ne mooy kàddu gi kawe gi mooy kàddu gi féete kaw dafa yónni Seydina Moussa jox aw yat woo xam ni day mel ni lu njabar googu nga xam ne moom la waa Firawna di def waaye ba mu dikkee dafa ñëw won leen ni lii ngeen di def du ak njabar ba njabarkat yi ñoo wëlbati ko xam ni kat lii Seydina muusa indi ci yàlla na jóge waaye du njabar ñu sànni njabar ga daal di rot ci kanamu Seydina Moussa daal di jébbalu daal di tuub nekk ay jullit xam na ni loolu du ak njabar ki nga xam ne mooy Seydina Isa bi mu ñëwee jamono jooju ku ne xam na ni médecine ak maanaam mooy moo nekkoon kéemaan gi gën a yéeme ci jamono jooju nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf koo mayoon képp ku feebar bu la laalee nga wér maanaam nit ku faatu sax man na koo dundal wala mu jël picc maanaam jël ab ban defar ko mu mel ni picc mu wëlbatiku ne ko euh, nekkal picc bi isnillaahi mu daal di wëlbatiku naaw ci ci ci ci ci ci ci war may sunu borom ak muy muy kéemaan goo xam ni daanaka euh, dafa ñëwoon semmal lottal ña nga xam ne ñoo gënoon a nekk ay médecins ñi gënoon a xam ci wàllu faj ci jamono jooju waaye ki nga xam ne mooy alayhi salaatu wasalaam bi ko sunu borom subhaanahu wa bëggee yónni màkka ku ne xam na ni jamono jooju ay ay ay shaa'ir ñoo fa nekkoon ay poète yoo xam ne daanaka eh, dem nañ ba wax ni eh, eh, seen kàddu ya lu nit baax baax baax bu ñëwee daal lay way ci seen yi ci seen poème yooyu ñu doon def maanaam mën nañ la cee tuutal gàcceel la ci ba nga xam ne yow àdduna sépp dañ lay dañ lay dañ lay xeeb waaye mën nañoo yëkkati jël nit yëkkati ko di ko tagg ci seen poème yooyu ba àdduna sépp daal di leen di naw te fekk duñ dara waaye bi loolu amee sunu borom subhaanahu wa taala ñëw indi indi alquran jox ko sallallahu alayhi wa mu ñëw daal di semmal ña nga xam ne ñoo doon poème yu mag ya Sëriñ Tuubaa mi ngi koy wax ci eh, tasoru sixaar bi ak tasoru subaan bi yépp dafa wax ni maqaama qawlillaahi jalla saddaqa abdiyaza fi maasaha aw nataqa mu ni li yàlla waroon a ñëw taxaw ànd ak yonent yi nga xam ne moom la yónni ni leen kat kii maa koy dëggal déedéet day ñëw indil jox leen benn kiimaan boo xam ne day tax ñoom maanaam képp ku man li nga xam ni moom la kii man defal te bu ko defee amul kenn kuy taxaw man ko waaye bi mu gisee eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa ñëw war koo donn te ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabiil ummi la woon sunu borom subhaanahu wa taala ci programme bi nga xam ne moom lay def dafa def ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënta jàng mënta bind nga xam ne alquran ji nga xam ne moom lay wax mu doon kéemtaan amul kenn ku ko mën a tuumaal ni ko yow da nga koo jàng wala yow mi dañ da koo bind wala dañ la ko dañ koo bind jox la nga liir yooyu yëpp sunu borom subhaanahu na waaye li yonent bi sallallahu alayhi wa mënoon a binde waroon a mën a binde wala mu mënoon koo mën a liire lépp daf koo jël rafaatale ko Cheikhul Khadim mu ñëw indi wax joo xam ni ba àddina sosoo ak léegi amul kenn koo xam ni mas ngaa wax lu ni mel ba àddina fii ba àddina du tukki amul kenn koo xam ni di ñëw wax lu ni mel mu wëlbati ko tënk ko ndax képp koo xam ne ñëw nga ngir liggéey da ngay indi sa feuille de route wala ngay indi sa euh, déclaration politique général comme ni nga xam noonu lañ koy waxee bu mu dikkee dafa wax ni kat man lil Moustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatahul xara fa inni ahmadu ñu ni ko léegi loolu nan ko koy defee mun leen sama programme yi nii ñu ni ko lan mu ni salaatu sitta bi xi sitta damay julli ci moom juróom benn weer daal di wëlbatiku di ko way juróom benn weer limité ki mooy xas xasdu mooy li nga xam ni moom laa jublu kon li ma jubloo liggéey ci mbind laa koy def laa laa ciy def te bu fekkee dafa wax ni dafa waxoon ni man dinaa walbatiku dem ba ci suufu subaab yi ba seeni ëtt ba seeni i ruum e, wax ak ñoom e, la ki nga xam ni la sëriñ bi doon wax ci e, masaalik bi dafa wax ni kalaamuhum isa dahaaka yaa balit faqul kama kama qaala zakiyul abdul wadud kalaamu lawliyaahi lastu afhamu wa innani ana ham ana ana fawhumu mu ni wàll waxi wàll yu moom maanaam bul fi ñëw jëm sax di di jéem a firi ndax du lu ñuy taqar ñi ak a kii da nga koy daxañ dëxëñ rek gëm ko ni nga xam noonu lañ ko waxee ndax nee na waxi wàlli yu amul kenn ku ko mën a comprendre ndax ñoom ay wàlli yu lañ waaye man Abdul Wadud laa kon bu sëriñ Tuubaa ne inni u xaati bu nasaara turan maanaam dinaa wëlbatiku ñëw ba ci seen ëtt di waxtaan ak ñoom wallaahi azim lii mooy li nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa doon doon firi ko moom moom la sëriñ Tuubaa doon wax kon képp ku sunu borom subhaanahu wa taala may tawfiix nga bokk ci lii nga xam ni mooy dëggal waxi sëriñ Tuubaa jooju wala nga bokk ci ñi koy organiser wala nga teew ci bis bi kon xamal ni yow am nga tawfiix àdduna am nga tawfiix àlaaxira te sëriñ Tuubaa boobu nga xam ni doon wax ni maa ngi koy leeral li nga xam ni mooy sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu njàngale boo xoolee ci wàllu xam-xam boo xoolee ci wàllu yar sax laay wax yi nga téereem boobu ñuy wax nahjul xadaal xaaj ba àddina du tukki amul kenn ko mës a bind téere boo xam ni ci wàllu jikko lay wax ba ba dab téere boobu te ba àddina du tukki kenn du mës a gis téere bu mel noonu nga gis ci ni nga xam ne noonu la ko tàmbalee ci wàllu tasawuf ci wàllu jikko ci wàllu yar ci wàllu xam-xam boo xoolee taswadu sixaar taswadu subaan nga xool nahjul euh, wala nga xool euh, euh, nu mu tudd masaalikul jinaan muy ay mbir yoo xam ne yu ama am solo loola te Sëñ Tuubaa nee na man nekkoon naa fi di wax ak yéen di jëf ngeen may gis di ma dégg bu ma demee ba nga xam ni nekkatuma fi ñi nga xam ni ñoo fekkee woon li nga xam ni moom laa doon dund ñoom ñoo ko mën a nettali suñ demee ba ñooña nekkatuñ fi kon li nga xam ni moom moom laa fi bàyyi muy sama mbind ci ngeen mën a référé woo kon loolu mooy xasida sëñ Diop kon incha allahu rabbi loolu rek lañ indi ci li koy leeral pour wane ne rek kéemaan la goo xam ni suñu borom subhanahu wa taala ndax julli géej gi rëy na lool sëñ Tuubaa def ko muy kéemaan gaynde ga nga xam ni moom lañ ko boolee loon rëy na lool sëñ Tuubaa def ko muy kéemaan jàkkaarlook say noon ñu wëlbati ko am ay arme comme ni nga ko waxoon lu ne ñu mën la koo faagaagal loolu lépp taxul maanaam sëñ Tuubaa def ko arme waaye dañuy man sama sama xalima mooy sama sama mbindum loxo mooy sama kéemaan te moom xam xamal nit ñi ni nga xam ni loolu mooy li nga xam moom la nar a liggéeyal sëriñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon indi rek ci premier point bu ko defee incha allahu bi ñu jàll ci waxtaan si sëñ Ablaye. ak sa jërëjëf jërëjëf sëñ Mbargou ñu fàttali rek ni wax dëgg plateau bi ñu ngi koy amal fii ci Touba Prato di bisub xaside bi nga xamante rek mooy onzième édition bi euh, Cheikh Moussa <coughs> dégg nga fi sëñ Mbargou daneele mu indi lu am solo ci xaside yi muy liggéeyu sëriñ bi ni ma ko waxee woon léegi rek di doonay murit yi mu war doon tam loo xamante ni lu war a sàmm la. ndax euh, li ñuy wax mujjee poussé bi mu réer war ñoo dal euh, sëñ bi euh, nekk na fi am ñu ko gis mu am ñu mu dundal mu bind bàyyi fi maanaam lu leer ni sëñ bi boo dee wër jamono sax amut ndax ñi ngay dégg ñu leen di seet daan daanaka danga nga dégg ñu naan naar sàngam naar sàngam waaye nii sëriñ bi leere nga xam ni danga naan nekkoon na ci yéen nekkoon na njaareem dem na gànnaar dem na gabon Euh, amub nataal ñu mën a xam ni kii la am ay ñu ñuy tudd ko tudd mu ay doom lu leer noonu amut waaye bu ñu delsee ci ba tey karamati xatu yaddi xam nga moom dafa wax ni tuwasilu aqlaami ilallaahi haabidan bilaa xalwatin wallaahu abhaa kama ahna nga xam ne da nga jàpp ba yegg ci suñu boroom te doo dugg ci xalwa yu bari doo ci jaar ndax bu njëkk da nga naan dem ci euh, wax dëgg yàlla euh, koo xam ne da ngay yaakaar ne am na ismullahi alsam muy turu suñu borom nga dem fa daanaka noor fa nawet fa ngir am loolu léeg-léeg mu jox la xaaj ba doo jox lépp léeg-léeg nga dee fa doo ci ko jot léeg-léeg mu teg ci natt yoo xamante ni doo fekk njariñ la sëñ bi moom tëlsam lépp doo xam ne la boo bëggee gi suñu borom jàppal ci xasida da nga ci yegg loolu nga dugg xalwa kon léegi war mooy xasida nan lañ war a def kon ba jariñ ci xasida jërëjëf sëñ bi li nga wax am na solo lool waaye sëñ tubaa pour nga xam ne du kenn te kenn du moom sëriñ tubaa dafa am lu ko yonent bi jaral lu mu jëralul keneen te ba mu ko ko jaralee yëmul ci wax képp dafa sóobu dem ca te boobu tuddul xaadim rasul liggéey bu mat sëkk rafet kemtalaay kàttan nag na mu ko señee woon contrat ci jumaa yi sëñ Mbàkke Madina ji loolee moo ko may turu xaadim rasul ba tax na kon li mu am ci tawxiid boo doon wër àddina ba mu daj néewaa nag koy tudd di mën a tudd sëñ Tuubaa ñu mën a moom loolu li ma la ciy jox tegtal rek dangay gis ñu bari bu ñuy bind ay téere di waxtaan ci wéetal suñ boroom paas bu ñu ubbi danañ bind ba mu fees ubbi beneen paas ba ba am ci ay paas yu bari naan yàlla nii lañ ko war a wéetale yàlla nee lañ ko war a def waaye sëñ Tuubaa xam gi mu xam yàlla ba yit wu gàtt la indi wu ransambale yooyu yépp yéete leen muy mahal baqaa'i wa xayrullaahi lillaahi lu dul yàlla yàlla la moom waaye suñ dikkee nag ci xasida niñ ko war a jàppee dañ koy delloowaat ci misir bi ñuy misiré sëñ Tuubaa dem jàppe woon xasida sëñ Tuubaa de moo wax ne bi ma liggéeyalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi jaamu yàlla ba noppi suñ borom moo ma wax ne ma Ahmadu mboolem li nga ma jaamu ak li nga liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam duy naa ci mulki ak malaku ba mu fees dell léegi nag mu des laan pay gi Ahmadu nan nga bëgg ku la ko fayee. mu ne ko yow yaway payaakoon bu mag bi yaa gën xam lépp yaay xaaliqu kulli shay'in yaay rabbu samawati wal ardi delloo naa la ko noo ko defale baax na ne ko kon dey comme maay rabbu samawati wal ardi dinaa jël léegi say mbir yépp ak ko ci kaw asamaan mu nekk ci niir yi tiim àddina bépp fépp foo xam ne ñi nga fi toog di jàng sa xasida yi ak di fa waxtaanee say mbir danaa leen tiim di leen sotti ay xéewal te tàgg tàggoog moom kon danañ rafet njort lool ci bu buñ ne murit yi nekk ca bitim réew la sëñ Tuubaa waxoon na danaa ñëw wat ci seen biir réew yi paaka du jóg jeesi du jóg fenn fu ne nit jóge fa ci diiwaan yu sori ci ay 400 kilomètres ay 300 kilomètres kon xam nañ ne lu ñëpp maase bëgg xam nañ ne loolu du ay nax du ay caaxaan sëriñ Tuubaa dafa xam xasida dégg xasida moom mii xasida ba buñ ko masaan jàng nii nit ñi di def di daanoo sëriñ Tuubaa leen ko njëkk a def xay na daanoon yi ñoo bokkul ndax euh, sëriñ ma Masamba mi nga xam ne moom la féetale woon loolu ca njëreem neex gi gàmmu daan neex te muy benn bis ci at mi tax na sëriñ Touba di def alxemes ne muy dundalaat gàmmu benn bis ñuy dundal gàmmu ca fi nga xam ne mooy njëreem que sëñ Masamba di yëkkati xaside yi di yëkkati ba mu jàggi sëriñ bi ne ñokketal boppam jóg taxaw defaru ba jekk waaye xamatul fu bunt bi féete moom te nit ñi xamuñu ci moom loolu ñu ne déet sëñ Tuubaa génnal boppam biir kërum njariñ gi ba àgg fi nga xam ne fi la jumaay njëriñ ji nekk yàlla mi dara tawul mu fekk ku ñuy wax bàyyi ma du as sa ñoom ja ñu nekk ci kaw jali suuf yi ak jali xeer yi ak donga yi baay ma du as sa moom xam na ne sëriñ Tuubaa ngi moom xam na ko waaye donga yi xamuñu ko sëriñ bi ñëw nuyu leen na leen na ngeen def dongo yi ñu ne ko ñoo ngi fi mu ne leen kër sëñ bi laay laaj te mooy sëñ bàyyi Modou Assou ne man de xam naa ko mu ne ko ñëwul ñu dem nga wan ma ko bi bàyyi Modou Assou ñëwee bëgg jàpp ci loxo bi sëriñ bi dana ko loxo bi mëtu la jàpp loxo bi mëtu la jàpp jiitul rek ma topp sa gannaaw bàyyi Modou Assou jiitu sëriñ Tuubaa topp ci gannaaw ñiy dox di dox di dox ba agsi fekk kër gi mel ne àjjana ju yàlla jële ci si rek cëppeel ko biir njëriñ sëriñ tubaa ñëw toogaat. ba jàng yi nopp bi mu giifee nag la ne waaw yéen lii ngeen di wax wax ju neex ji kan moo ko bind ba tey jël ba euh, dañagul 100 pour cent ñu ne ko am ah, Mbàkke Bàlla lii de yàggu bind mu ne man maa wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii ñu ne ko waaw mu ne ah kon nag acca ëllëg man ak yéen ak xasida yi ba àjjana waaye lii ngeen di jàng dinaa leen xamal ne xasida gii mooy njanaaw gi mooy li ko sëñ Saliou Mbàkke daan nettalee ñi koy jàng ñooy laaf yi ñi koy déglu di tunq yi kon nañu xam ne sunu garantir fii ci àddina su rawatina fii ci tugal xasida yi doo nga ñu ko mën a may benn ñu dajee ko laa laayante biir service suñu bopp servir yëmuñu sax servir ñun jullit yi waaye réew mi sax dañ leen di dañu leen di dañ leen di protéger ci xasida yi mais ñoom xamuñu loolu waxuma ak nag nga nekk taalibe boo xam ne da ngay toog ci sa biir néeg jël sa xasida xasida nag mënoo jàng yëpp kenn munuta jàng yëpp ni ñu koy jàppee mooy ni ñuy jàppee doomi Sëñ Tuubaa yi da ngay dem lu ci kenn bëgg ñëpp. bu la kenn gërëm bu la ko gërëmee ñëpp gërëm la waaye da am xasida goog danga nga koy war lool ne gii dama ko tuddee sama bopp jàng di ko jàng bus bu set nga di ko jàng boo ko miinee danga dem ba mokkal ko xasida googee bu ëllëgee kuñ ne jiyi ci bàmmeel xasida ga mooy teeru ni sama xarit ba ñëw na sëñ Tuubaa loolu ay waxam la loolu du lu ñuy nattable beneen bi ci desit gis nañ yoonu géej gi boo xoolee bi muy wax yàlla dogal nasaraan si yóbbu ko fanweeri at ak ñaar mu nekk ko ci seen loxo ndax Touba juróom-ñaari at la fa dëkk képp suñ borom boole koog noonu jamonoom ne ko na génn bi yàlla dogalee atum jëy sa sin boobu jot muy 1913 1813 boobu mu génn woon di dajeeg 1895 mu dem fi nga xam ne mooy dëkk bi nga xam ne mooy euh, Mbàkke Bari ñeenti weer yam fa def ba yàlla dogalee mu dem génn tubaab yi nee na booba seen xalaat bépp mooy jël ma jël sama bakkan ñàggi sama dëkk tasaare sama njaboot fay sama taali jàng xusuur yi xalat wala ahlu xanni tafaraxat li matxi la si xanxu madixu xasiru kooka ba mu koy wax mi ngi misaal yoonu géej gi te booba soobagul ci géej gi kon xam na kon fa mu jëm sëriñ tubaa deesu ko bëgg rek ci ne bëgg naa ko rek yam ci ndax bëgg gi moom boo ko xasee def rek la des nag mooy na nga koy renouveler saa su nekk col gi wax ji sëñ Ablaye Jaxate yàlla na ko yàlla dolli leer nee na ab taalibe bu tëddee ci lalam sax war na ñoo xam ne ab taalibe la ndax ni ñuy xamee ne ab taalibe la mooy lal bu ne yàmbal ak ñetti nit di ci tëdd yow képp nga tëdd ci war ngaa am yar am melokaan woo xam ne suñ la ca fekkee yow képp danga fa jël sa place képp ñu xam ne ab murite gi sëñ Tuubaa nag dénkaane woon na ñetti point ndax dafa woo mag ñi bën ñëw ndax ay tomb la daan wax ne leen xam ngeen farlu ak fayda ak fulla ñu ne ko ah Mbàkke de loolu yaa ñu koy tekkil mu ne leen farlu day lépp looy def te wutal ko waxtu woo koy def su jotee bu la ko kenn mën a tee def ku dul suñ borom muy xaside yi wutal ngeen ko bis fu bis bi jotati lu ngeen jàpp moyen yëpp na ngeen ko génnee ñu mën koo def fayda ñu ñu ne ko fayda mu ne fayda de mooy lépp looy def te néew doole fekk la ci wéttali ko ci yàlla kon xasida yëpp su ngeen koo dajale nii lu ci mën di dugg ak lu mën di mel rek na ngeen jàpp ne ak yokkute la waaye bu leen ko jàpp sax ak ak ak arrière wéttali koon ci yàlla tax yàlla moo yaqaaliku kullu sa in fa la mu tàkkun taraw fa in hoo yaraak ñu ne ko fulla mu ne fulla mooy lépp looy defit fo ca la baax yam na nga ca yam foofu it nag danaa ci jàngal danaa ci daanal ci point bu am solo ci ñun ni ñuy dundee sëñ Touba nañuy bàyyi lu ñu jóg rek ne sëñ Touba te duñ setantal li nga xam ne moo ca baax sëñ Bay Jaxate radiyallahu taala anhu fu ma dem danaa ko wax. yàlla dafa dogal mu am point bu am solo bu mu jàngale ci taalibe dafa yor taab gu métti ci digg gannaawam sol xaftaan tëdd ndefe naay benn taalibe bi jógee fële rek ñëw ne dama koy bës ndax xam naa ne sëñ bi war naa ko bës te sëñ bi woowu ko muy bës bu agsee ba ci taab gi su laalee taab gi rek sëñ bi dana nii ndigli mu defee ne foofu dafa neex muy bësaat sëñ bi sëgg di jooy bi mu bësee bës a bës ba taab gi toj ndax bu ñoree dëtt lay génne bu ñorul deret lay génne taalibe bi xool loxo bi mu def ay deret mu daal di daw sëñ bay jaxate ne dem leen ngeen jàppal ma ko ñu dem wër ko ba jàpp ko indi ko fekk sëñ bay jaxate di jooy bi daal ne bi mu a man na yow de xam naa ne lu baax rek nga bëgg teyit wóor na ma ne su ma la santoon ne la kaay bés ma danaa la jox condition yi nga may bés teyit bi nga may bés te amoo ci digalit na la wóor ne su ma ne la woon ak taaba gi sama gannaaw doo ko bës waaye li may jooy du lool de li may jooy mooy est ce que suñu diggal sëñ Touba ëllëg du mel nii di yëngu ci mbir defe ne neex na sëriñ Touba te neexul sëriñ Touba ndax weñ kat su tàbbee cim soow bëgg xaru yóbbuwu ko ca woon de ak bëgg ko ci waaye dafa xamul na muy sooboo kon nan jàpp sëñ Touba kennal sëñ Touba bennal sëñ Touba ak njabootam ñu xam ne sëriñ Touba ba addinay tukki lu mu mës bind dañ ciy teg bët war ma ji ñu war a jox nag xasida yi moom la war a jox dëkkam bee di Touba ndax am na lu wax wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan han xaatikil maridi képp koo xamee ne joxe nga sa bopp na nekk àjjana yi murid bu soobu jëm ci suñu borom nanga ko def pakk bu nag buy wëlbati ak a fekk képp koo xam ne dafa féetaral jóg jéem di a xotti war may dëkk bi wala su war may lislaam wala sutura su dëkk bi kon dal loolu sëñ bi mooy li nga xam ne bëggoon naa koo dolli ci soññee bisu xaside bii nga xam ne tey moo dajale jullit yépp bismillah ak sa jërëjëf Cheikh Moussa euh, andi nga wax dëgg poñ yu am solo euh, laalaale ci sëñ Mbaye Jaxate moom nga xam ne euh, sëñ bi daan wax ni dee leen déglu Mbaye Jaxate moomu ndax sama làmmiñ lay waxee ak yéen. sëñ Bargou dégg nga sëñ Moussa bi daane rek xanaa ngir gàttal jotaay bi ndax mu ngi mi ngi mi ngi ñu ngi bëgg a xaabaabal. Euh, dégg nga li mu wax nii maanaam war nañoo dakkit bëggug sëriñ bi waaye nga indi woon bayit bu am solo boo xam ne daanaka booy xool euh, mooy kenub liggéey bi lil Moustapha nawaytumaa yu jaddudu sunnatoo xaraw ini ahmadu nga xam ne rek euh, boo doon seet ndigalu sëriñ Tuubaa jëf ndax ndigalu sëriñ a nga ca peese ko ci balance yi charia ak ak ak sunna bu fa bu fa bu fa daanoo rek xamal ne loolu ndigalu sëriñ Tuubaa la waaye rawatina bés bu mel nii nga xam ni ay moyens ñoo koy Euh, ak mbooloo moo koy def waaye euh, mbooloo ndax aussi benno bi ndax xam nga mbooloo mën naa am bu fekk dun bennoo maanaam man ngaa gis fuul bu bëree baree bari mais ñoom benn idée benn objectif am kun ci jiital topp ci ginnaawam bañ ko fa kasal maanaam ngir soññee ci mbooloo moomu ak lan ma war a mën a taxawal bis bu mel nii euh, lan nga ci mën a indi ba képp koo xamante ni xëy na desoon nga ci ginnaaw wala nga nekkoon ci tam dana la soññ ba nga xam ni dinañ mën a jàpp ci lu mel nii nga xam ni Euh, lu du yàlla nekku ci lu yonent bi nekk lu du Sëñ Tuubaa nekku ci ndax 24 heures yoo xam ne da ngay toog jàng xasida jàng alxuraan karim la koy dog mooy waxtu julli ñu noddu ba fajar yaakaar naa euh, njaareem nga ko sëñ bi doon bindee wala Touba gee nga xam xamante ma nga fa sax xaw na faa néew ndax bariwut ñu ko fay def waaye xëy na dafa fekk dafa dugg rek ba tey ci loolu moo wax ne inni uxaati wu nasaara tura moo tax xëy na moo nañu fi bàyyi kon tam nan nga a soññee nit ñi ci mën a jàpp ci bis bu mel nii nga xam ne wax dëgg yàlla euh, bëggug sëriñ bi lañ ci dàkk ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala lañ ci dàkk jërëjëf sëriñ Abdoulahi jërëjëf sëriñ Moustapha ci leeral bu am solo boobu waaye Cheikhul Xadim day dafa wax ni la tafalu cheikhan bi xayri iznin fal iznu chartun min xabuli sahlin mu ni bu leen def lenn te teguwul ci ndigal ndax ndigal mooy li nga xam ni mooy liy tax ñu nangul la bépp mbir booy def ku ne xam ne ni buñ delloo tuuti ci taarixul islaam xare Uhud bokk na ci xare yi nga xam ne ñoo gën a metti ci jullit ñi ndax dañ leen a rey dañ cee rey ñu baree bari rey ci jàmbaar ju màgg muy Hamza nga xam ne mooy doon bàyyi taxu yonent bi te loolu lépp li leen ko yóbbee mooy ñàkk dégg ndigal sëñ bay jaxate moom nga tudd léegi dafa wax ne am am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba kon nañ leen fexe ba lépp lu ñuy def ñu teg ko ci ndigal teg ko ci parce que ndigal dafa doon loo xam ni dafa am doole lool ci lépp loo xam ni moom ngay def ndax sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi ko wax mi ngi koy wax ci alquran nee na ana kan moo gën a rafet jëf ki nga xam ni day woote jëm ci yàlla ba pare bi isni yi teg ko ci ndigal ci ndigalul suñu borom kon wootekat yi bari nan waaye est-ce que ñoom ci woote boobu bi isni bi isni rabbihim lay doon kon Serigne Touba ba mu jugee dafa wax ni sunu borom subhaanahu wa taala moo ma wax ni fasda bi ma tuumaru na nga wëlbatiku wone woote ñi nga xam ni ñoo la topp rabbi asxaabaka bi himma falaatu rabbihim bi dar darsi faxat kon moom ndigal ba nga xamee ne suñu borom subhanahu wa taala jox la ko xam-xam bi nga xam ni am na ko ndax Eh, ñi ngi koy wax ne maqaamam junayd ak mbóoti tey foor ci sagraw nga ko làqe te tax ci laa foor moom mu waxal boppam ni yaa xayra maahi maal junaahi maal misaay waxta sibaay ni ba ma nekkee tànk la suñu borom leeral sama xol ba ñi nga xam ne ñooy ñu màgg ñi nga xam ni danoo dem ba egg suñu borom ba ma ne cëpp ci dëndu dëndu yàlla bi ci laa leen raw waaye loolu lépp taxul mu wëlbatiku di woote ndax ba mu nekkee ca kër Mamor Anta Sali war ma bi nga xam ne joxoon na ko waajuram euh, ta taxoon na jugul di woote jugul ni wax li woote li nga xam mooy yoonu tasawuf waaye bi nga xamee ni Mamor Anta Sali làqu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko yaral ñi nga xam ne ñoo la topp ci sa yitte bopp waaye bu leen yar ci njàngum kese kon ndigal la jot foofu ci sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu wëlbati ko wax waxam juróoy jooju nga xam ni képp koo xam ne da fee ñëwoon ngir njàngum kese bay boo nga dem wuti ko feneen waaye képp koo xam li ma bëgg nga bëgg bëgg a egg suñu borom ñëwal ñu ànd muy wëlbatiku ñu ñu mu la ñu maanaam ñu laaj noonu lañ lañ ko defee mu ne di déglu ndigal di bàyyi tere kon ndigal dafa doon loo xam ne lu ama amam solo la ndax boo xoolee ci taarixul islam ñi nga xam ni ñoo am maanaam pertement ñoo am defet ci li nga xam ni moom lañ sóoboon di ko def lépp ñàkk topp ndigal la Serigne Touba ndam li nga xam ni am na ko ci liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala dafa gis sunu borom subhanahu wa wax ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibkumullaah kon yàlla moo jox yonent bi ndigal ni ko waxal ni leen su ngeen bëggee sunu bo du fekkee ni sopp ngeen suñu borom na ngeen wëlbatiku topp ma su ngeen ma toppee sunu borom dina leen sopp ba pare jéggal leen seen bàkkaar bàkkaar yëpp kon moom ndigal la ko suñu borom wax pour mu wax loolu ba sëñ Tuubaa xamee ni suñu borom kat kii la topplu mu daal di wëlbati ko xam ni koo bëgg bëgg bëggam mu bëgg mu bëgg sa bëgg-bëgg koo bañ bëgg-bëggam nag su ko neexee loo bëgg mu ni bañ naa loola yàlla sallallahu alayhi wa sallam la bëgg joxoñ la ko sëriñ Tuubaa ñëw topp ko moo tax mu wëlbatiku lii mu am lépp maanaam li nga xam ne moom laay jeexale mooy maanaam bi nga xamee ni wëlbatiku ne di liggéeyal suñu borom ci sallallahu alayhi wa sallam ci di ko tagg ci wëlbatiku di leeral li nga xam ne moom la fi sallallahu alayhi wa sallam indi woon ci misaal mën nañoo ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ni banque buy fayit la li mu yoroon lépp da koo jël jox ko cheikhul xadim ba nga xam ni jeexal na mu ni ko man kat li ma yoroon jeexal naa nañ ànd ci ki nga xam ni mooy euh, rabbul xazaayinu samawaati wal ard moom moom magasin asamaan ak suuf bin eggee sunu borom subhaanahu wa taala ni ko mu ni ko kii li ma yor li maanaam li ma yoroon lépp tagg na ma ba ma wëlbatiku jox ko te jeexal na suñ sunu borom ni Serigne Touba yow lan nga bëgg mu ni ko bii aroomu jamial xayri min maliki wa huwal wasilati fii sirri wa fil alani mu ne ci moom mii laay sàkkoo lépp loo xam ne bëgg naa ko ci yow bu ko defee ndax mooy sama wasila ci ci lu nëbb ci lu feeñ kon yàlla ne ko kon daal xam may def damay jël caabi magasin yi jox la moo tax mu ne xazainu rabbi futihat lii wa zahzahat li xayril aza dunya wa oxra wa balzaqu mu ne suñu borom subhanahu wa taala ubbil na ma magasin yi nga xam ne fa la yiw nekk fa la xiiwal nekk fa la barka ba pare daal di dàq iblis mu sori ma ma nekk koo xam ne damay jëriñ nit ci àdduna di leen jëriñ ca barzaq di leen jëriñ ca àllaaxira te xam naa ne ñi nekk ci àdduna moom xam na ni Serigne Touba ngi leen di jariñ te ku demoon waa barzaq fëgg leen ni leen kuy xaadim rasul dinañ la wax ku mu doon bu yomul xiyaamee bu boobaa insha allahu rabbi waalaa niya labraaru fil oxraaya wan xaadali bi lanti alxiraaya mu ni bu yowmal xiyaamee ñu màgg ñi ngeen di dégg ñu leen di tagg ak di leen màggal seen bëgg-bëgg du dara lu du nekk ci sama ñu ko lu tax mu ni wan xaadali bi lanti alxiraaya ndax suñu borom subhaanahu wa taala la baax yowmal xiyaam yépp ci sama loxo la rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Mbadou Gueye kon Cheikh Moussa sa kàddu gu mujj. waaw comme euh, ni ñu amalee jataay bi rek amale ko ci jàmm indi fi xam-xam indi fi soññe yàlla ñu yàlla may dégg gu ànd ak topp di nuyuwaat rek euh, encore une fois mooy presse bi. am nañ part ci lii ji def ndax dañuy tasaare loo xam ne nit a nga toog ci këram te fekkewu ko loolu nag day tënku ci li ma waxoon rek ay alxuraan naan wa zakkir fa inna zikraa tanfa'u l-mu'miniin fàttali ko tey fàttalee dana tax ki ngay fàttale mu am njariñ suñu bokki bisri yi ak suñu bokk yi nga xam ne ñooy euh, vingt 24 ak mboolem press yi nga xam ne teew nañ fii yépp ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci bisu xasida bii di ñaan yàlla mu mayaat nu fekk ak yéen ñii nga xam ne yéen a toog ak euh, sunu sang balee toog moom i tamit Euh, moom itamit yàlla defal leen daal li nga xam ne lu faw xala daal ci xasida yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokki jullit mbokki taalibe yi kon ñoo ngi jégalu bu baax ci jotaay bi te lépp lu ci dëng rek nga xam ne suñuy di la waaye wax dëgg yàlla kii ñu koy defal matte na sëkk muy Cheikhul Khadim Euh, ñu fàttali rek bayitam yi nga xamante nii waxoon na ko muy yaquudu xattiyal murid lil xaadiril baaxal murid mu zax sisan kulla marid ila sooma mi naanaam euh, ndax dañuy wax ni ñetti xeeti murid dafa am murid dafa am marid am maririndoo am murid nag mooy ki nga xam dafa namm suñu borom euh, sopp ko bëgg ko tege ca yoona kooku incha allah day yegg ci suñu borom subhanahu wa taala bi mooy ki nga xam dafa féetarlu bëggul dara bëgg ku dem du ma dem waaye kenn du dem lay wax ci yoon wi lay farankolaayu fexe andi ay ay ay ndëgg sërëxam ku jug jëm ci lu baax mu gàllankoor la ba doo yegg ki ci des nag mooy ki nga xamante ni moo di Marino nga xam ni xamut fu muy teg tànkam daanaka boo demee ci baqara mu zabzi bi na bay na rek la euh, dafa nekk ci diggante bi xamut lu baax xamut lu bon xamut lu mu bëgg xamut lu muy bañ waaye ku jug mu ànd ak yow ku toogit mu toog waaye Sëriñ Tuubaa nag li mu wax ni yaquudu xatteel murid li xaadir baaxal murid maanaam mbindum loxo mi dana womman murid bi ba ci suñu borom subhanahu wa taala kon nag nañ a xam ne moo di waxe suñu borom waxe Sëriñ Tuubaa naan ay tànk nag boo ci toppee te dëppoo bu yàggee da gis lu bokk ci jëmm ji la wax ndax ba muy dénkaane ci mu mujj boobee la ci la bokkoon muy jumaa ji ak euh, maanaam doomam yi ak xasida yi loolu nag kon war naa tax ñu bàyyi xel bu baax a baax ci fonk ko ci warmaal ko ci jàpp ko ndax lépp luy jariñ war nga ko mën a teg fa nga ko war a teg ndax na fa lora birada reen la Serigne Touba mooy ki nga xamante ni lépp loo fa fekk njariñ la tubaab yi sax da ngay gis bu ñu defaree eh, ab médicament dañuy bind ay effet indésiré ak effet spécial yu am yoo xam ne médicament dana ko def waaye Serigne Touba mooy ki nga xamante ni nafal wara bila dareen maanaam amut lor léppam njariñ la kon nañ xam fa ñuy teg Serigne bi nañ xam fi nga xamante ni moom la ñuy fa la ñuy teg maanaam xasida bi ndax liggéeyu mag la te liggéey bu gu nu nangu la te am na ci ngërëm te lépp loo xamante ni la mu doon wax ni euh, bu ma euh, amee taalibe boo xamante ni dafa faatu te ma nekk ci loo xamante ni euh, maanaam damaa jàpp nee na suufu Tuuba ak xasida yi dana ma dana ma jiitu ci moom kon nag loolu ku am loolu war nga xam li nga yor lu mu doon ndax damay faral di wax ne boo duggee ci kër yi document yi doo leen gis. carte crédit doo leen gis carte bancaire doo leen gis poste pay ni ma koy faral wax naan léegi poste pay mu deemee sax ñu jégal waaye ndax luy jariñ la doo ko fekk ci taabal waaye boo duggee ci kër yi xasida yi fën na fën na lay las lasee meubler seen bibliothèque yi ay photo ak i plate moo leen gënal wut xasida yi di ko wecceeku di ko fi def xam ngeen ni am na koo xamante ni dégg naa mas naa bàyyee ko àdduna ñu koy waajal dégg naa bi ñu koy waaj sëriñ bi daal yow ni laaj ni ndax bàyyi nay xasida Ah, ñu dem xool ko ni ko dafa mel ni bàyyi wuti xasida mu ne dem leen fàgguy xasida itam moo asakanoole maa moomale ko ko nga xam ne kon lu am solo loo xamante nii bala ñu ko xam rek daanaka yàlla na yeex day dañuy dem ba yomal am kon ñoo ngi sant bu baax di di leen jéggalu ci kàddu yi lu ci dëng rek ni ma ko waxee woon ci sunu jëmuy xeebi la waaye sunu yéene ak sunu wax dëgg pas-pas romb na fii yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla ñu si borom wàcc jàmm jullit ñi barkeb Serigne Touba ci barkeb bis bi lépp lu ñu fi jëleet yàlla nañ ko bokk jullit ñëpp ndax euh, jubluwuñ ci dara bëgguñu ci dara waaye bëgg képp

بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنالي